yow muslim bi yaay docteur ñoom ñëpp bi isnillahi taala ndax yooyu am sa borom loolu moo tax mbir mi xam la laaj mbokk yi ñoo ngi dellu si waat ci xaw ma caaya la xaw ma nañ ko def li tuwéy jii nga xam ni waa ji li mu ci daj dégg wax ji bu baax léegi tekki ko ñu xol léegi bagage a ngi nii boo xam ni bëri na waaju lay romb ak ay garab fees dell fekk caaya yi lay sol ñu jël xaatim yi dugal ci biir xaatim moom moo nekk ni tur yàlla yaa ngi ci biir turu jinne yaa ngi ci biir ñu laxasal la ko lem la ko jox la ko nga ciy génne ngelaw di ci def sobe di am bakkaar di dem te yaa ngi koy jëndee xaalis bu dul jeex ana réer warul toll nii léegi xoolal ma ni rek teel ma ni moon la xoolal xaatim baa ngi nii boo ko doon tey ji fekk ci turu yàlla mi ngi nii xoolal lii xoolal fi waa ji topp yaa ngi dégg beneen na ngi nii yaa ngi dégg xoolal fi muy génnee ngelaw beneen na ngi nii xoolal bi xoolal bi loolu yëpp jabarkat nu mu gën a rek seetaan gën a ànd ak yow moo te am na ci ay xaatim yoo xam ni mbërëgu jigéen ngeen baal ma moom lañ koy bindee deret deretu sobe am na yoo xam ni man wu lañ koy bindee pour jinne mën laa uyu loolu nag kon nga xam ni njabarkat mooy ki gën a moom mooy tas sa yi tëj ci dëkk bi moom mooy ñi nga xam ne ñooy xabtal xale yi ñuy dem kaso moom mooy def lépp kon njabarkat ku bon la koo xam ne yàlla dafa waxoon nañu leen rey loolu mooy li xam ne moo ci nekk njabarkat nag asraarkat bii moo ci gën a garaaw bii mooy bi ci gën a garaaw bii daf mel ni faux billet ci xaalis loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk faux billet nag mën na nax cuune waaye nag bu demee banque kenn du ko ko dencal lii mën na nax ku xamul diineem loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk kon mbokk yi yii mën na jox asgar du ko gën a kawe amul amul amul amul amul parce que yàlla subhanahu wa taala moom moo dafa ko jàngal maa ngi ciy dellu siwaat képp ku bëgg a tàggoo gàllaaj yi الحمد لله رب العالمين باسكو يالا يينا لا بو واتنا بالله من الشيطان الرجيم باسكو داغا ملني كوي ديم خاري داغا ملني كوي ديم خاري تي خاري بيب بو غيس امان دي دلوسي باذن الله تعالى لكن نك لو ورا واخ بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غا جانغ فاتيه بن ايت كرسي بن فلاخ الناس بو تي نك بن dégg nga bu fekkee mbir nga alquran nga tëjee ko dernier verset suratu Yaasin fa subhaanallazi bi yadihi malakuutu kulli shay'in ilayhi turja'uun mu ni fa subhaanallazi tudd bi nga xam ne bi yadihi ci loxol boppam malakuutu nguuru yàlla yëpp bi kulli shay lépp wa ilayhi ci yàlla turja'uun lay dellu loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ah mbokk yi déglu leen bu baax askar yi keneen leen jox askar yu gën a kawe yi jamais mënta nekk loolu askar bi daf lay jubanti daf lay faj daf lay defal xéwal da lay faj loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk nga julli ñaar rakka rakka benn bu ne nga def fatiha ak qul huwallahu ahad ba pare nga sujjoot ba sujjootee baada auzu billahi mina shaytani rajim nga jàng fatiha jàng ba def walaahu ahad suñu borom maa ngi lay ñaan sa kattan ak sa yërmande lépp lu yomb yaa ko yombal waaye lépp lu jafe yaa ko jafel yaay ki am kattan ci yaay ki not loolu aussi alquran la boo demee sourate Fatir aya 2 foofu la ko borom bi taara ko taala waxee maa yaftahi laahu linnaasi ila axir aya boobu mooy wax ci loolu kon mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax ñàkk a ñaan yàlla kooku rëy la ñàkk a jéggul sa borom kooku rëy la a sant sa borom tabaraka wa taala kooku rëy la loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk kenn ku war ngay sant yàlla di sant sa borom li mu la bàyyi leen xel bu baax ci ne mala yi fas yi mbaam yi ñun ñëpp ñoo bokk borom ñun ñëpp ñoo bokk borom ak golo yi nekk ci àll bi kon bu ñu yàlla tane ñu nekk nit ba pare nag xoolal jinne yi doomu aadama yi ëpp dara jaar parce que mosu leen a gis yonent yàlla jinne yonent bu nekk jinne amul fenn yonent yëpp ay nit lañu kon ñun dañu war di sant borom bi tabaraka wa taala fu ñu toll waaye na xam ne muslim mooy docteur docteur yi kooku mooy ki nga xam ne moom mën a faj ñëpp waaye ñeneen ñi mënuñu koo faj buñ ko dee faj day gën a feebar day gën a feebar gisaloo feebar ni mel léegi feebar dafa melni manam maanaam métier la sax xoolal hôpital ni fessé feese moy li nga xamni mo ci nek naka la fi fatiyé mën a doomu adama yi jubuñu wéruñu lutax tax loolu parce que yàlla nangou ko kasso yi fess nañu hôpital yi fess nañu parce que doomu adama yi duñu ay jullit ñi ay musrik lañu ñi dañoo réer ñi nekk ay yéefar ñi nekk nafaq ñi nekk rambaaj ñi nekk châtre insa ñi nekk awliya setan ñi gumba tax lu ñuy dof loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ci xeetu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo xaajal li ko nekk fukki groupe ak ñaar muslim moo nekk 18 tawba mushrik moo nekk 17 tawba kiréer moo nekk 30 araf yéefar moo nekk 83 mariam nafeq moo nekk 145 sorte nisaay rambaaj moo nekk 143 sorte nisaay siatna ins moo nekk 112 al am awliya shaytan mo nek 76 sur nisaay ki gumba taxlu mo nek 18 bakara daf mo nek sur takwin ay 22 ki réer ci diine mo mo nek ay 170 sur bakara yàlla bàyyiwul ken ñoo ñep la ken rek mo ci am réseau normal moom moy muslim bi kasse muslim ana naka lay mel day kenal yàlla day selal day lap day setal doxalin bu dagan tagal liko ak musriki manam lan moy selal ak lan moy kenal yàlla wetal borom bi tabaraka wa taala bokale moy yàlla ak yàlla ak yàlla ak sama ndomb yi yàlla ak sama xàmm yi yàlla ak sama bopp golo gi yàlla ak sama bëjën bi yàlla ak sama fas yi yàlla ak sama lambu ñuul bi yàlla ak sama laar yi yàlla ak yàlla ak loolu mooy bokkale léegi nag soo muccee sellal mooy lan mooy nga setantal li ngay def ndax mën nga ci am bakkaar wala ndax mën nga ci am yiw maanaam loolu moom mooy sellal laab moom mooy sobe bi gën a ci yow nga xam ban qualité ndox moo la ciy gëne loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk sellal ak laab ak setal ak doxalin bu dagan tàggatle ko ak li nga xam ne yow ki ngay li ngay setantal moom setantalu ko loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk kon nag loolu mooy muslim loolu bisimilahi taala kon alhamdulilah comme waxtu yu jigéen na léegi nañ bàyyi